asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xamante ne yéen a ngi baaxoo ànd ak seen télévision bu mag bi nekk ci jumaa ji ñu koy wax GMT TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ci waat yi nga xamante ne moom lañu lislaam tànnal ñu ciy jokkalante ay nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam. di am naan mbégte bu baax ci jotaay yu màgg yi nga xam ne jamono yi yépp yéen a ngi koy topp bi weer wu màgg wu sell wi teroo ba léegi ay boroomi xam-xam yoo xamante ne yu jàmbaare lañ ca li ñuy yëngu. jaar ci jotaay yi doon indi ay pàttali ak ay jàngat ak ay soññee yoo xamante ne yépp dafa jëm rekk ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ak ci ak dundam ak xéewal gu mag gi mu nekk xettali gi mu xettali jaam ñépp ci juddoom gu tedd gu màgg gi nga xam ne moom lañuy waajal niki itam liggéeykatam bu màgg bu sell bi sunu wet muy xadimil muxtaar nga xamante ne nu nekk rek doxee na ni ak moom la ci jiitu di ak cofeel gu kenn mënta takk yooyu itam nekkoon ay tomb yoo xamante ne waxtaane nañ ko ci ay jotaay yu weesu tey nag ñu dikkaat ci beneen jotaay boo xam ne dañ ko ànd ak ku ngeen ràññee lool muy Cheikh Abdul Ahad Bousso Serigne Afia nekk ku ràññeeku ci liggéey bi waaye ci jotaay yu ni mel di ko taxawee ci fii ci réew mi ak ci bitim réew rawatina nag ci jumaa yi Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne moom moo jubuwaayu murit yépp mu fi jiite li nga xamante ne mooy kuréel bi saytu lépp lu waa aju ci wàllu xam-xam ak gëstu xam-xam ak tasaare ko ci biir daayira bi nga xamante ne mooy saytu jumaa ji muy muqaddamatul xidma jataay yi jàlloon dañ ci doon waxtaane ngëneelal gàmmu di ci waxtaane kiimtaan yi ci am di ci waxtaane taxawaayu sëriñ bi ak bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam ak fonk gi mu fonkoon gàmmu jotaay yooyu nag buñ ko waxtaanee ba noppi waxtaan ni mu ko fonke woon xasaayid yim ci bind lim ci wax yontu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam ak mbégte mi mu daan am boo am bu ñëwee jaadu na ñu waxtaane guddi gàmm gi nag naka la ko daan dundalee moom sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu tey jotaay bi ci loolu la jooy jëm insha allah ñu koy ànd ak sëñ Abdou Lahad ni ma ko waxee léegi nga xamante ne doy na sëkk ci li ma jëkk a wax ci ne war naa mën a taxawee jotaay bi waaye leneen dolleku ci nag muy ki nga xamante ne moom lay ñëpp di dellu ci ab nettali ndax nettali moom ka fekke ak ay gëtam mm, ka teewe woon jotaayub sëriñ bi muy gàmm nekk e, maamam nekk waajuram e, muy saytu nag jeexit yooyu nga xamante ne maamam ju baax jooju bàyyi na ko du ci nettali gàmm yi rek waaye yeneen yoo xamante ne murid yépp ñoo ko yittewoo xam te moom mu fekkee ko am ca ak xam muy dajale loola ak di ca gëstu kon loolu mbirama waaye buñ toppee jotaay bi incha allah man naa am du gudd lool waaye dana fees dell ak ay njariñ incha allah yaakaar naa ku ko topp ba mu jeex dinga xam dëggi dëggi ni sëriñ bi doon dundalee guddi gàmmu ca na mu tàmbalee ba na guddi ga di jeexee incha allah kon sëñ Abdou Lahad ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateur ak internautes yi nga xamante ne ñi ngi topp jotaay bi waaye itam ñu dikk ci laaj yi ak tontu yi nga xamante ne moo ñuy jàngal naka la sëriñ bu mag bi daan gàmmoo ak wala gàmm gi nga xamante ne dañuy nettali ne noonu la ko doon defee ci ab jotaay ñu mën koo xam ndax xam ngi lim ñu jariñ mooy roy ko Cheikh Abdou Lahad bismillahi alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa wa xadimihi alxaail wala tujaalis xayra man bihi tusaat diinan wa xaqlan euh, Amdi Moustapha asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ngi lay nuyu di la delloo nuyoo di nuyu jullit yépp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ndokkeel ci weer wu tedd wii di weeru gàmmu di ndokkeel jullit yépp di nuyu mboolem ñiy seetaan télévision CMT TV ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi di ñaan sunu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir bu barakati xaadim rasul jërëjëf Cheikh Abdou Lahad ci nuyoo bu matale boobu hmm. eh, di ko fay itam eh, bu ñu bëggoon a xam dëgg-dëggi hmm. sëriñ bi ni mu doon gàmmoo maam gàmm gi nu mu ko doon defee buñ ko bëggoon a xam euh, nan lan nga ñuy lan ngay tontu ci laaj boobu incha allah. jërëjëf euh, euh, ku tedd ki xaadim rasul Maulana xaadim rasul xam ngeen digganteem ak weeru rabiul awal mhm. muy weer woo xam ne su ñëwee. Mhm. dafa mel ne dafa mel ne mooy weer wi nga xam ne daanaka bu buñ doon natt sëriñ bi ci mbégte. Mhm. Euh, mu ne su ko takk mhm. ndax euh, ci xasida gii léegi ñu doon waxtaani rek maa ngi gis mu bind ci euh, mu bind ci mhm. ci wane ne raddiya anni rabihul awali mhm. bi xayri suxtin hinda zil arsil wali maanaa ak ngërëm li nga xam ne rabiul awal da koy da koy gërëm moom sëriñ bi kon xëy na am na nu ciy taxawee noo xam ne kawee na aw taxawaayam ci yeneen weer mm-hmm. loolu li ko waral nag kenn ku nekk xam na ko mooy digganteem ak yonente bi sallallahu la wa sallam te weer wi di weeru yonente bi sallallahu alayhi mm-hmm. sëriñ bi ni ñi gàmmoo da koo wax ba mm-hmm. noppi moom moo gën a xam yonente bi ñëpp kon ni ni muy defee ni muy gàmmoo ñun noonu lañ jàpp ne noonu lañu war a gàmmoo te loolu mooy di wér nag ndax boo gisee mu tegtaleel la ay bayit ci jës bu Euh, taxsimuhu bi sunnati mm-hmm. loolu rek dafa tënk lépp mm-hmm. sëriñ Saliou moo ñu ko doon firil mm-hmm. nañu taxsimuhu bi sunnati li ci sëriñ bi jublu mooy yoon wu dëppoo ak sunna muy yoon wu baax muy ak jaamu yàlla goo xam ne dafay dëppoo ak sunna muy dundal guddi gi ci alquran ak qasida ak bernde sëriñ bi nag euh, ngir xam gu mu xam yonente bi sallallahu alayhi xam ne tamit nii lañ ko war a màggale moo tax mu amoon yoon wu mu ko doon defee njëkkante ak waxtu yi guddi gàmmu sëriñ bi xam nga ne dégg nga mu wax ne laylatu mawlidan nabi min asasi hmm. wa xaadali fawqal munaafi talsasi hmm. loolu soo ko dee xool ci 1301 boo ko doon nattale ci dat yi nga dégg ñuy wax ñuy tàmbali gàmmu ci Sénégal ne ci lañu gàmmu hmm. datu sëriñ bi daf koy jiitu lool ndax 1301 sorewut ak 1883 wala 1884 wala 82 boobu. Hmm. te loolu kon date bu jiitu la ci date yi ngay dégg ñu tàmbali ci. Hmm. gàmmu ci senegal hmm. gàmmu sëriñ bi moom moo ko daa def di ko defal boppam. nga xam ne euh, gàmmu gi nga xam ne nag euh, sëriñ Modou bu Bousso nga xam ne nettali na ko. te fekke woon sëriñ bi doon ko gàmmu. te ñun ñi nga xam ne ñooy daayira Muxaddamatul Xidma ci noonu la ñuy royee ngir gàmmoo ko. te ci labiré bokki taalibe yépp it ngir ñu royee. royee ko noonu hmm. ndax sëriñ bi moo gën a xam mbégum yonente bi kon nu mu koy defe rek hmm. jàpp nañ ne loola mooy liy bégal yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sëriñ Modou Khari Bousso dafa nettali ne am na hmm. genn gàmm goo xam ne ànd na ak waajuram sëriñ Massamba Fati sëriñ Modou Khari doomi sëriñ Massamba Fati la moom sëriñ Bousso bi ñu dem Ceyeen Jolof ngir doon yóbbu ay addiya ak di siyaare ji gàmm fekk leen fa ñu bokkoon ca ña doon taxawe gàmm ga ñoom ak waajuram moom moo nettali ne sëriñ bi nii la daan gàmmoo hmm. xam nga ne gàmmu euh, guddik fukk ak ñaar la ci rabiixul awal hmm. guddik fukk ci rabiixul awal moo tax sëriñ bi dafa am yoon woo xam ne ni la ni la doon gàmmoo hmm. bisu guddi gi bu ñëwee xam ne day doon fukk ak ñaar ci rabiixul awal dafay digle ñu jàng fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne benn bu nekk dañ koy jàng ba kaamil bi jeex ñu xatmu muy fukki kaamil ak ñaar digle tamit ñu def ñetti kuréel benn kuréelu jës bu benn bu mu waaxibu benn bu mu xaddimaat kuréel bu nekk dana la digal nga jàng fukki bayit ak ñaar jës bu dañuy jàng fukki bayit ak ñaar mu bu jàng fukki bayit ak ñaar mu xaddimaat jàng fukki bayit ak ñaar ñu jël buntu barsan jiyu boo xam ne mooy barsan jiyu arab bi nga xam ne ki ko def li tax sëriñ bi tànn ko doon ko jàng doon ko def ci guddi gàmmu xam nañ nekkoon kon xasida gu barkeel la ndax sëriñ bi lépp loo gis mu koy def te du mbindam jële ko ci gaay yu baax yi xamal ne xasida gu barkeel la ñu jël ci benn bunt buñ noppee jëlaat yeneen ñetti bunt ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci barsan ji loolu tamit boo ko xoolee dafay méngoo ak guddi fukk ak ñaar ci gàmm kon sëriñ bi moo xam loola lu tax mu def ko hmm. loolu nag ci biir njàng mi dafa am yoo xam ne dafay ànd ak moom ci yoo xam ne sëriñ bi moo ko daa jóg di ko defal boppam hmm. muy ci biir bu ñuy jàng sëriñ Modou Khari nee na hmm. bi dana gis ne suñ jàngee ba mu yàgg dana ñëw indi laj koloñ ju neex muy laj koloñam yooyu nga xam ne moo doonoon ngën ji laj koloñ xam nga sëriñ bi moom ci xam digganteem ak boroomam xam digganteem ak yonente bi ak xamit malaayikal muxarrabuun yi niñ bëggee xet bu neex mhm. tax na sëriñ bi parfum yi mu daa jëfandikoo muy sikki ak libin ak saxfaraan mhm. yi ci gën la daa doon maanaam original la daa doon buñ buñ ko doon misaal ci léegi yow mi nga xam ne miin nga France wala Paris mhm. gis nga sikki Guerlain ba nga xam ne moo fa gën a seer moom la sëriñ bi daa jëfandikoo ci guddi gàmm nga xam ne day ñëw di ko sotti ñuy jàng léeg-léeg mu ñëw sotti leen ah, sëriñ bi ci boppam mooy mooy jug di di mooy jug di ñëw di leen sotti léeg-léeg mu sotti leen sikki mu hmm. sett leen libin léeg-léeg mu sotti leen chahfaran hmm. wala sikki gerlin boobu hmm. bu demee ba mu yàgg mu ñëwaat indi ay berde di leen ko jox moom ci boppam suñ kanam euh, as ndiir xëy na dañ ci góor góorlu rek ci luñ ci mën a tënk rek ñu bàyyi sëñ Abdou Lahad mu wéyal mu ngi tolloon ci ni sëriñ bi doon séddalee xaside yi nga xamante ne ñu ngi koy jàng ci guddi mawlid gi waaw ni ma ko waxee léegi ñetti kuréel yi bu ko defee ak koo xam ne mooy jàng barsan ji su tàmbulee tàmbalee jàng benn bunt jës bu dañuy jël jàng fukki bayit ak ñaar mm-hmm. ma waxi bu jël jàng fukki bayit ak ñaar mu xaddamaat jël jàng fukki bayit ak ñaar mm-hmm. ci biir loolu nag sëriñ bi ci boppam sëriñ Modou Khari nee na mooy ñëw di sottil boppam parfum yu neex yooyu mm-hmm. moom ci boppam nee na am na benn bis sëriñ bi sotti parfum mu dal ci am mu sotti ko ci mbubbam mi mu soloon ci bi mu nekkee ci kuréel yi mbubb mooma dañul di xeeñ parfum ba nim xare ngir parfum bu ci sëriñ bi sotti woon ndax maanaam gëtt gu ngir gëtt gu gu gu yéeme ak barkeelu loxob sëriñ bi tamit nee na mbubb mooma ba nim xare nga xam ne taggu wut ak moom mm, musta ñàkk xeeñtu parfum boobu ci sëriñ bi sotti woon mm. Serigne Modou Khari moom yàggaat na fi gannaaw Serigne yàggaat na fi ndax moom 1993 euh, la fi jógee. 93 hmm. te ci yéen xam nga ne Serigne bi mu ngi fa jógee 1912. kon loolu euh, yàgg na loolu yàgg na hmm. ay at la. Serigne Modou Khari nee na am na euh, ci biir loolu njàng mi it léeg-léeg day dem indi ay lekk yoo xam ne mën naa am xeeti beñe lay doon. Hmm. léeg-léeg mburu léeg-léeg mu indi kafe Mm-hmm. léeg-léeg mu indi attaaye mm-hmm. léeg mu indi meew te moom moo koy xelil boppam moom sëriñ mm-hmm. ngir teral ñi nga xam ne dañuy maggal guddig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loxol boppam ndax xam nga ne sëriñ bi moom mooy liggéeykat bu mag bi kon ñum gis ñuy liggéey yonente bi sallallahu alayhi day liggéey ci ci ñoom ngir ñaqal leen ñoom it nga xam ne sëriñ moo doon def loolu nee na am na benn jamono boo xam ne ci xër gum xër ngir berndel leen ak di leen teral dem na ca fuur ba sarse ak sendal maanaam duy ak sendal ba mu fees dell sendal mooy mooy sendal mooy yi nga xam yu mag yooyu defukaay yu mag yooyu hmm. mu duy ko ak mburu ba mu hmm. fees dell dell dell daanaka àttanu ko sax hmm. mu di ko cakk-cakkee ak tànku neen moom sëriñ bi ñëw di leen ko xëpp ñu bëgg koo jàppale nanguwul ñu jàppale ko soluti daal ñëw di ko xëpp ñuy jàng di ko sotti ñuy jàng mel ne day sëñ bi day mel ne bu nekkee ci biir guddi gi. Mhm. Eh, day mel ne day day aalu ndax ndax ndax ndax ndax ni muy yëgee yonent bi alayhi salaatu salaam. ni mu yëgee yonent bi dafay ñëw ci moom ba nga xam ne dafay mel ne day am ay melokaan yu koy dikkal. Mm. di aalu. Mm. ngir dafay mel ne sax léeg dafay dégg ñu jàng bayit woo xam ne. Mm-hmm. dafay mel ne moom sëriñ bi waxu ko. léeg day mm. génn. di laaj. mel ne ku jaaxle ci lim dégg ñu wax ko yonent ndax ba xam dafa am keneen ku wax leneen lu mu waxul yonent bi ngir aal jëm koy dikkal. ndax xam nga ne ñetti ñetti xasida yooyu euh, tey soo ci ñëwoon rek hmm. ci fu mel ne mooy bu nga xam ne ni ci sëriñ bi di waxe yonente bi te du tudd turam di ko melal hmm. nga gis jës bu nga xam ne ni mu ni mu muy ñëwee di ko melal hmm. ak ni muy nettalee histoire yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jës nga ñëw ci muxaddimaat ci ay jikkoom labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fika min al axlaaqi ma ahjasal lu mel ne jës bu nga gis Euh, ni ni ni ni mu melale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gàmm hmm. bi muy judd moom yonent bi ni mu mel ah, laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya bi hmm. laylatu mahwi taha bi hmm. wane màggaayu guddi gi waaye ne moom dafa guddi gi dafa indaale lépp luy effacé ak sikki sàkka wala coona nga xam ne maanaam nit ki nit ki moom li ko gën a mën a sonal en foofu li mu ci jublu mooy ñàkk a jub wala ñàkk am diine mhm. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gane àddunaam mhm. ci la fi dindee lëndëm indi mhm. leer moo tax guddi la goo xam ne xëy na sëñ bi yooyu la koy yooyu la koy moo koy moo dikkal moo koy dikkal maanaam ixyaau mawlidin mawlidin nabi yaxmil xiyaala wa duyur yaxmil xiyaala wa duyur waaw fihi sifaun li sudur kulli haadin yan kulli xam nga loolu lu yéeme la ndax Euh, dundal gi muy dundal njaboot gi. Mm, mm. dëkkuwaay di leen aar di leen aar. Mm-hmm. ak saafara jàngoro xol. Mm-hmm. te jàngoroy xol xam nga moo ah, indi mooy moo gàllankoor. Mm-hmm. lu bëri nga xam ne soo dee xool kon ci biir guddi gi noonu la sëriñ bi daa fanaane. noonu la sëriñ bi daa fanaane ak ñiy jàng ba bët set. waaw wax na tamit wa in alaama in quri. mawlidu xayril bashari. fa suubu bil mutahari yakuffu kaydal murghami ci laa doon ñëw sax ah. sëriñ bi def daa digle tamit hmm. ci biir njàng mi ñu jël ndox taaj ko hmm, hmm. ci digg kuréel yooyu ah kuréel bu nekk lañ koy taaj ñu taaj ndox loolu itam ci ci lu mat a xam la mat a xam la ñi koy ñi koy def di ko roy waaw kuréel bu nekk ñu taaj fa ndox suñ jàngee ba noppi ñu jël ndox mu tefli ci lañ doon jàng sëriñ bi ci boppam moo wax ne moo wax loolu ndox moom ñuy ndox moomu ci ne ni ñu ko waxee léegi. Hmm. képp koo xam ne naan nga ci ndox muñ jàng ci guddi gàmm. Hmm. lépp luy jàngoro da koy saafara lépp luy ajo it da koy da koy da koy da koy da koy da koy faj. Hmm. lépp lu ci nit fas tamit da koy am jàngoroy xol ju nekk mën na ko saafara kon loolu ñi nekk ci corona wala ñu nekk ci àddina bi. gàmm solution la pour dañ dajal mbas mi fi nekk. loolu sëriñ Tuubaa kaaraange la itam kaaraange la itam. kon loolu tamit ñi ñiy roy ni sëriñ bi doon gàmmoo ñu bàyyee ko xel noonu kon su ma doon tënk laaj bi nga ma laaj ci sëriñ bi nan la daan dundalee guddi gàmm mooy xam nga ne gàmmu fukki guddi fukkeelu guddi ak ñaar la mm. alxuraanul karim la koy laytaayal mm. la koy laytaayale mm. fukki kaamil ak ñaar def ñetti kuréel yoo xam ne benn bu nekk fukki bayit ak ñaar la lay digal nga jàng ko mm-hmm. ak buntu barsan ji mm-hmm. boole ko nag ñuy fanaanee durus maanaam nga xam mbooloo mi nga xamante ne ah. moom xëy na kuréel yi ñëpp duñ mën a tàbbi ca biir di jàng mm-hmm. ni nga ko junjee léegi day mel ne suñ Modou Khary moom eh, ci biir kuréel yooyu la nekkoon daan daan doon doon yëkkati mm-hmm. an ñooñu la sëñ bi doon berndeel di wane mbégte moom am ci yónente bi ak gane àdduna ak mm-hmm. ci guddi googu di ko wane ca ñoom nga xamante ne ñooy jàng mooy ñëw di leen berndeel ak di leen xeet eh, sotti ay xeeti yu yu am solo yooyu noonu waaye mbooloo mi nga xamante ne moom ñooy ñëw nag fekke si gàmm gi moom nan lañ doon def ci kanamu sëñ bi. dafa am solo ci mbooloo moomu sëriñ bi dafa luy digal kuréel yi bu ñu jàngee ba noppi. bu ñuy hmm. jàng barsan ji xatrillahuma xabril karim hmm. bi xarfin sasiyin min salaatin wa taslim hmm. dafay digal mbooloo mépp ñu di ko aw ndax euh, lenn lu nekk dañ koy fukk ak ñaaral gis nga suñ fekkee jàng nañ bunt barsan ji ba noppi ki koy dëbbee dafay wax xatrillahuma xabrahul karim bi xarfin sasiyin min salaatin wa taslim fukki yoon ak ñaar. Hmm. mbooloo bi awu ko. mel ne secret gàmm gi daal. day tënk ci fukk sëriñ bi dafa yéeme nu mu xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lépp daf koo natt ci fukki lu guddi ak ñaar. Hmm. ndax atrillahuma xabrawul karim bi arfin sasin min salatin wa taslim hmm. su ko kii dëbbee waxee mbooloo mépp àndandoo wax ko am na diggante boo xam ne dañuy agsi ci bokk ko nattale tamit ak gis bu dafay tombe ak bayti laylatu mawlidin nabi waaw waaw hmm. foofu tamit yonente bi salaa salaam borom barsan ji bi yonente bi di ñëwee nag ngir war a feeñ nag hmm. maanaam di di di judd nag borom barsan ji yu daf koy nuyu ay nuyoo asalaamu aleyka yaa xayral basar hmm. asalaamu aleyka yaa day day teertu day teertu gan gi ñëw day teertu gan gi foofu bi ñu fi masaa agsi bi dafay digal nit ñi ñu jóg taxaw mi ngeen mel ni yonente day mel bi mi ngi ñëw ñëpp jóg taxaw ngir tatagal ko mm-hmm. teertu ko mm-hmm. moom mi nga xam ne ak juddoom ci la adduna gore mm-hmm. ci la ci la ci la ci la ci la lépp yéwéne ci la kéefër tamit daanoo xam nga ne ni ko jës bu di waxee dex ga ci la niis safar sañ doon jaamu pale kisra xar buur ba tiit ba daanaka daanu ceeb lalam nga xam ne ñi nga xam ne ñoo doonoon noonu lislaam ñépp xam nañ ne yëg nañ ne nag ki nga xam ne moo war a xettali mi def yi ki war a tatagal lislaam ñëw na iwaanu kisran sadaa fiha wa hmm. xablu rufia samkun lahu fartafa hmm. naxwa ah. samal mukarram waaw hmm. <laughs> ah. eh, xam nga euh, sëriñ bi kon façon boobu la suñu moo doxari nettalee ne ni la daal dundale guddi gàmm kon mu mu war nag ci ñun ñi nga xam ne ñun ñun ñun amuñ benn naanukaay bu dul xarim rasul kon ni mu ko laa defee amuñu droit ci moyele ko noonu loolu nag moo tax daayira mu xadimatul xidma fii ci jumaa ji hmm. di ko dundale noonu hmm. guddi gàmmu ci ci façon boobu ba set hmm. xam ne fii moom lañuy ni dañuy roy ni sëñ bi doon gàmmoo ci forme bi ak ci fond bi ci form bi ak ci fond bi nga xam ni ko sëñ bi doon defee ci boo xoolee jotaay bi ni ñu koy tëralee noonu lay demee waaye la sëñ ba daan def ci biir jotaay bi itam loola dara du ci soppi dara du ci soppi incha mu mel na léegi-léegi parfum yeeg yooyu kon xanaa lu ñu war a waajal la ginnaaw nag daa bokk ci waaw maanaam tey dafa war a doon yi gën a neex nag ci parfon yi xam nga sëriñ bi sëriñ bi ni mu xamee yàlla boroomam ni la xamee woon àddina ni la xamee tamit li gën ni la xamee tamit kan mooy boppam moom sëriñ bi wabtaxi fii ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasiibaka mina dunya moo tax Euh, ci ci ci ci melokaanam tamit ci ak nosoom mm. ci mbiri àddinaam léppam dafa nosu woon mm. amul benn menn mbir mu mi bàyyi loo xam ne da koy gis mu désordre wala dara moom sëriñ bi ci ñi ko xam dëgg-dëgg kon nag ñi ñëw ci jotaay boobu war na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ci jotaay bu nosu waaw boo xam ne ku ñëw foo fekk mbooloo ma mu toog fa yow tamit war ngaa mën a jokk foofa mm-hmm. waaye toogin toogin woo xamante ne danga war a teewlu mhm. uh, barab bi mhm. waaye teewlu guddi gi mhm. waaye xam ne nag ñi ngi koy defee ni ko sëñ bu mag bi doon defee waaw ndax barab bi yaakaar naa ne guddi gàmmu moom maanaa barabu teewlukaay bu ko gën a war amut toog jublu penku mu am ay yoon yoo xam ne dañ ciy jaar ñi seddale jukki yi ak ñi seddale ñam yi te ñëpp ànd ak dal yaakaar naa ku gis ni mu xaddimatul ma di gàmmoo sax da xam ne yëg-yëg bi fi nit di am dañ la koy wax mm. ah. gàmm gii ci penc mi de yëg-yëg bi ma fi am mm. néewaana ma am ko ci jataay loolu li ko waral mooy def gi ngay def tawasul sa digg ak sa borom ak mm. bàyyi gi nga koy bàyyi xel ci ne nii kat ñuy gàmmoo nii la sëriñ bi daa gàmmoo loolu mooy li nga xam ne moo moom moo moo méngoo ak bëgg-bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mu mel ne lépp rek day tënkuwaat ci tanzimuhu bi sunnati gi nga doon wax mm-hmm. Mm-hmm. mooy màggal ko ci sunna gi Sëriñ Saaliwu joxoon ndigal dayre bi mm-hmm. ci ñu koy def te mu nekk ay at yu baree bëri xëy na ñëwee ci penc mi ñu bëri ci lañ ko gën a xam waaye day mel ne taxawal nañ ko ay at yu bëri yoo xamante ne noonu lees ko doon taxawale xëy na li ciy soppeeku lu néew la bu ci amee euh, waaye tanzimuhu bi sunnati gi li koy firndeel mooy day mel ne ni ko sëñ bi doon defee ci fukki kaamil ak ñaari jiitalee ku ubbee alxuraan ba ñëw nag ci di liñ fay def lépp amul lenn loo xamante day génn sunna mooy eh, tagg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. ak nettali jaar-jaaram mm-hmm. nga am ay jeexitalam kan mooy yonent bi kañ la gane jamono ñan ñooy ay waajuram mm-hmm. lan la def xare yi nga xamante def na ko ngir taxawal islaam ñu àndoon nag moom ngir taxawal islaam muy muy saxaaba yi te sëñ bi daan wax ñooy seen baay ci diine waaye tamit ñëwut nag ci jikko yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loolu day day ñëpp jullit dañ ko war a xam ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi na hasana mhm. yónnante bi xam jikkoom yi dañuy dimbale ci ñu man koo roy mhm. te ni nga ko junjee mu ne sëñ bi ci ci ñetti xasida yooyu mhm. da cee tënk dundug yónnante bi yëpp tënk ci siiraam mooy boo xoolee ay xareem ay nangam yëpp da koy wax xad xaama xayrul bashari wasta xiyaari zumari ma nga ca badar ak ak ak ak yeneen barab yoo xamante ne day wane taxawaay yónnante bi ngir lislaam mën a mën a mën a samp mhm. waaye itam wax nag xawaare ak euh, xar baax yi nga xamante ne am na ci mhm. feeñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wan lu rëy mi ngi xew mhm. ba noppi wax njariñul màggal guddi gi ah, njariñal màggal guddi gi waaw ni mu amee njariñ ah, ni mu amee njariñ loolu itam waaw fa man yuhassim mawlida nabiyuna babil huda falaa yuhaasabu xada falaa yuhaasabu xada xam nga tamit loolu lu am solo la fekkee nga rek màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi ci sellal ko rek. Mm. ëllëg kenn du la isaab. dëgg te bëri na kuy tardé ëllëg kët. te isaab ba koy tardé isaab ba koy tardé waaw. am na am na am na bu mu waxaat sax ba mu wala yulaaqi dararaa la. yow ma timaaxil umami bu ëllëg yow ma. waaw doo gis lu lay lor. loolu lu yéeme la mu ñëwaat ne. Mm. wa kullu man anfaqa fii. Mm. mawlidihi l musharrafi maalan bi xayri sharafi. walaw bi xadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar mhm. wa yowma badrin wa nasar mhm. waaw xam loolu daay yéew loolu tamit ah, lu mel ne ku ciy def benn dërëm rek mel na nga ko fekke woon ba badar mhm. bañ koy taxawal mhm. te xam nga badar moom mhm. eh, day mel ne ña ko fekke woon ca ca seen daraja yaag maqaama ya lay wax waaye waxul lañ doon jëf waaye ku ko def day mel ne am nga yoolu ña fekke woon ba badar te ñooña moom ñu ñu goreel ci sawara lañ ñoo xamante ne seeni laa bi fase rek mhm. daanaka day wecci ay góor yàlla yu bëree bëri mhm. kon loolu day mel ne occasion la boo xamante ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel te sëriñ bi it euh, sëriñ Amdi Moustapha mhm. dundal na guddi gàmmu ci barab yu wuute gis nga ni mu ko doon dundale ci bi mu nekkee ci géej gi ak ni mu ko dundale Ceyeen gànnaar am na gàmm gu mu doon def fii njaareem goo xam ne yéeme ne yéeme goo xam ne ci bernde ak mbooloo mu bëri wax nañ ne Cheikh Issa Dieng ay seng la jëndoon lal ko ci pénc mi hmm. di jël ay ñam di ci sotti ñu yéene ngir ñëw ñu di nit ñëw di di xewlu di jëfandiku alxanaa loolu mooy faman taaman hayya ah, ah, aliman ah, lahu qarqara mu wàjjalan faxabaa xayraati alil himam bi moom xayraat moom yéemu yéemu ci kenn yéemu ci kenn beneen bi fii Touba tamit juróom-ñaari ati Touba wax nañ ne sëriñ bu fi daa gàmmu hmm. gàmm gu jot daf koy wutal xasida xasida yi nga gis nii hmm. lu mel ne miimiya lu mel ne raiya lu mel ne euh, Ahmad Souleymane. Hmm. yooyu yëpp nga gis daanaka yu ci bëri. Hmm. sëriñ bi. Hmm. gàmmu maanaam yàpp wata boor la ku daa wutal. Ah. maanaam nga xam ne. xasida gu yees fekk koy wutal xasida gu yees xam nga xasida majmuwa yi nga gis nii. nga xam ne da ngay gis. Ah, mu ci xasida yéeme yoo xam ne da gis boo xam ne. rabiul awal la koy tënkee. dangay gis yoo xam ne mi ngi koy tënkee. rabiul awal ay yoonu yoon yoon la bind waaye waaye da ciy da ciy wax boo xam ne rasuluna ahmadu sallallahu alayhi lii baanat bihi hulaahu da ngay gis boo xam ne rafaxanii man fi rabihil awali mm-hmm. abda rasulallahi wa huwa lil wali xalaya man allahu bil wusuli mm-hmm. wa jaada lii bil kasbi wa taxsili rabixtu fi madxi nabi muhammadi ribxan ilayya xaada fadla samadi ne li mu tagg yonent bi am tanowu na ci tanowu boo xamante ne mu ne sukaa tënk wala ah, xëy na danañ am yeneen jotaay insha allah bokki jullit bokki taalib yi nga xam ne ñu ngi ñuy ñu ngi topp seen télévision bu mag bi ci jumaa ji dinañ am yeneen jotaay insha allah waaye guddi gàmm gi itam su ngeen toppee télévision bi lépp loo xamante ne mi ngi xew ci jumaa ji ak ci pénc mi ak ci yeneen barab yi nga xamante ne sëñ bi ma fa ak yeneen barab bi nga xamante ne mu mboolem mbokki taalibe ñu ngi fay taxawal ay guddi te di ci royee daayira bi ci niñ koy taxawalee fii ñu koy ànd ak waa Rawdu Rayaaxiin di daayira boobu nga xam ne xam-xam la ñuy saytu lépp dara du leen ci umpi incha allah di leen tàgg foofu di yëkkati jataay bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli wa sallim wa barik alayhi